Serigne Cheikh Anta di yëkkati ci turu Serigne Abo Mohamed. maa ngi ñaan ñëpp ñu ñu déglu. Serigne Cheikh di yëkkatilu. nee na ca ànd ak ay teggin. te xam ne. Serigne Touba. moo ñëw Daaru Salaam. seet si Serigne Modou Mamoun. ak njabootuk borom gaawaan gépp kon nag ñu ànd ab yar ak i teggin mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na fi yàgg lool te gën a wér Serigne Touba Serigne Mountakha yal na fi yàgg lool te gën a wér Serigne Touba. Serigne Mountakha yal na fi yàgg lool te gën a wér te lépp loo xam ne nekkoon na mébéti maamam ak way juram yi ko fi jiitu ak magam yi lépp yal na ko àggale ci sagoom université bii mu naal nag moo ci raw jàngukaay bi yal na jël caabi ji ubbi ko ba ko ba teg ca nag leneen lu bari ba teg ca leneen baree baree bari. Ah, sëriñ bi sëriñ bi. sëriñ Aboo na. sëriñ Aboo nee na. mi ngi yeesalaat seenu taalibe. mi ngi yeesalaat ak taalibeem. di yeesalaat seenug laxasaay. di yeesalaat seenug laxasaay. di seen bopp. di jébbalewaat seen bopp. di la sant cant goo xam ne. di la sant cant goo xam am na fu mu tàmbalee. am na fu mu tàmbalee. waaye amul nag amul fu mu yem. suñu ko mënoon. na maam Cheikh doon sant Serigne Touba. na maam Cheikh Anta doon sant Serigne Touba. ba mu jógee ci géej gi ñëw fi. kon danañ la sant noona. kon danañ la sante noona. wala nu ko raw sax. wala nu ko raw sax. Eh, waaye nag. waaye nag. seeni xol. seeni xol. ak seen lépp. ak seen lépp. jébbalaat nañ la ko. jébbalaat nañ la ko. na maam Cheikh Anta jébbale woon boppam. maam Cheikh Anta jébbale woon boppam. Eh, dikk gii nga dikk Daaru nga dikk Daaru Salaam. mooy li ma waxoon keroog rek. dag ñoo beral loxo rek. mooy lam waxoon keroog dag ñoo beral loxo. ndax li fi xew lépp. ndax li xew lépp. teraanga ji yëpp yaa ko def. teraanga ji yëpp yaa ko def. màggal giit. màggal giit. na. sëriñ bi nee na. teraanga ji yëpp yaa teraanga ji yëpp yaa ko def. sag màggala. sag màggala. Eh, yaa ko moom. yaa moom. ci anam yëpp. ci anam yëpp. waaye nag. waaye nag. jëf ji. jëf ji. teraanga yi doyoon na sëkk. teraanga yi na sëkk. waaye waaye nag nga yëkkati sa tànk. ak coono yu bari yi. ak coono yu bari yi. ñëw fii. ñëw fii. nee na ñu ngi koy jégalu bu baax a baax. sëriñ Abo Mouhamed nee na mi ngi koy jégalu. te di la ci sant nag bu baax a baax a baax. cant goo xam ne yemut fenn. moog bokkam yi fi nekk. ak bokki taalibe yëpp. noo ngi yeesalaat sunu taalibe. di ñaan bu baax a baax Mbacke bal nga gën fee yàgg te a wér. nee na foo def seen saar ak doy na sëkk. mu ne amati nañ te mu rëy a rëy Serigne Mouhamadul Mountakha nee na mbégte mii mënuñoo am mu ko gën a mu ko ëpp. jataay bi itam yëg naa ko bu baax a baax a baax. nee na jataay bi itam yëg na ko bu baax a baax a baax. yitte jii nga xam ne na yitte jii nga xam ne moom la sëriñ Abo feeñal. wér xam na ne Pastef bu wér moo ko lal. ak yéene ju rafet. nee na loolu day yëg nañ ko bu baax a baax a baax. nee na xolam gën naa sedd. am xelamit gën naa dal. yaakaaram itam gën naa dolli ko. nee na li ne ci ab xolam akum xelam munu ko wax sax ci aw làmmiñam cant gu cant gu rëy goo xam ne sant na ko ci yittey sëriñ aboo ji ci jataay bi. li ñu fi nee na li ñu fi jëlee bari na lool. te nee na lépp njariñam la. neena li ci mujj. feeñal di a def seere ci yeesal gu ma yeesal waxtu wu nekk sama jaayante ak nee na mi ngi ñuy def seere ci yeesal goo xam ne waxtu wu ne da koy gën a yeesal ak jaayanteem ci sëriñ Tuubaa. di leen seereel it ne mi ngi gën a feddliwaat ak laxasaayam. fas ko yéenee ànd ak bokk yëpp ak bokki taalibe yi. benn xememteef. nee na amul benn benn xememteef. bu dul bu dul nekkal Serigne Touba rek. sax ci liggéeyal di sax dakk nag ci di liggéeyal sëriñ Touba. ànd ko mboolem mbokk yi. ànd nag ak mboolem mbokk yëpp. ak mboolem mbokki taalibe yi. nee na loolu rek mooy yéeneem. mooy yitteem. amul beneen xalaat. amul it beneen bëgg-bëgg amut it beneen xememteef ak cant rek la. xanaa nag loo xam ne ak cant rek la. te mënu koo wax ci aw làmmiñam. loolu moo di. loolu moo di. soññe bu rëy bii nga xam ne. soññe bu rëy bii nga xam ne. ñi mu bokkal sëriñ bi. ñi mu bokkal sëriñ bi. ñëpp. ñi ngi ma ciy soññi. ñi nga ko ciy soññi. loolu ak cantam. loolu ak cantam. mënu koo wax ci aw làmmiñam. nee na da koy seereel sunu borom mi ñu booleeg sëriñ bi seere ko sëriñ bi muy sunu lépp tey ak ëllëg ngeen xam ne daal sant na gërëm na xolam sedd na xelam dal na. yaakaar yaakaar di yaakaar dolli ko na ba àgg. xam ne yaakaar dana fa àgg yaakaaram dolli ko na ba àgg fa. ci sababus nag yitte jii nga xam ne. lu ca desoon rek. jotaay bii moo mottali loola. jërë ngeen jëf. na ñëpp àgg suuf te tàllal seen i loxo te bu kenn jóg. sëriñ bi nee na nañu bàyyi yoon wi te tàllal seeni loxo bu sëriñ bi ñaanee ba génn ba dem ngeen soog a jóg loolu mooy ndigal. sëñ bi na ñaan ma naaj nu nangu ñaan tey wax amin sëñ Cheikh wuyul sëñ amin ya rab amin ya rab amin ya rab amin ya rab amin ya rab amin ya rab amin amin ya rab amin ya rab Serigne waaw Touba No, no, no.

nee na joxe loxo rek ñaan sëñ bi nee na ñu ñu kii ko. waaw. bu loolu de bu loolu de Touba